man maa ngi tudd Alioune Cissé dëkk dëkk bu ñu naan Ngoloum euh, tey nag dama am benn waxtaan bu ma bëggoon a wax ak sénégalais yi muy jublu ci li ñuy wax waxambaane waxambaane nekk étape boo xamante ne nii ci doomu aadama képp ku gudd fan jaar nga ci euh, te mu nekk loo xam ni nii nag ci Sénégal gis naa ni amul cër ci Sénégal ndax kenn du wax ba tudd ko kenn du xalaat ba xalaataale ko kenn du def ba defaale ko te waxambaane nekk etap boo xamante ne nii ci doomu aadama euh, yàlla def ci dëxëñ lu bare te yéen Sénégal ngeen ni dangeen ngeen a bëgg a Sénégal surtout waa administration sénégalaise waa gouvernement Sénégal da ngeen a bëgg a développer Sénégal avec les jeunes les femmes donc la tranche d'âge des jeunes est de trente cinq ans fanweeri at ak juróom jigéen loo mën a am ci at bokk nga waaye góor soo amee fan weeri at ak juróom wala ñeent fukki at ci Sénégal tey bokkatoo waaw ma gis ni tey su ngeen bëggee génnee tranche d'âge boobu ci li war a développer Sénégal je pense que Sénégal du gaaw a démarrer du dox wala su doxee doxinu kàkkataar lay dox parce que diggante quarante ans ba soixante ans su ngeen ko génnee ci li war a développer Sénégal bëggu leen Sénégal dox am na leneen lu nekk seen seen xel kon dama bëgg ngeen bàyyee xel waxambaane ndax waxambaane expérience bi am na ko xam-xam bi am na ko euh, savoir faire bi am na ko kon dama bëgg yéen Sénégal ngeen bàyyee xel bu baax waxambaane te man li ma ci jaaxal mooy soo nekkee ci secteur formel bi dañ lay utiliser ba 60 ans léeg-léeg sax ñu yóbbu la ba 70 ans. mais soo nekkee dans le secteur informel maanaam tailleur bi mason bi menuisier bi mécanicien bi et cetera soo amee ñeent fukki at yow bokkatoo ci Sénégal kenn du xalaat ba xalaataale ko projet boo déposé sax kenn dañ naan danga age âgé waaw yéen lu ngeen nar ci ñoom est-ce que bëgg ngeen Sénégal dox man loolu jaxal na ma mu nekk loo xamante ne nag euh, moo jaxasee sama xel depuis ñaar fukki at maa ngi ciy xalaat ndax. soo xoolee sax am na suñu maam suñu baay Ablaye Wade jaar na fi bi muy ñëw daf ne woon politique de jeunesse politique de jeunesse la la la doon incarné euh, boobu Malick Ndour mu ngi ànd ak moom ànd ak am ñaar fukki at ak juróom di ànd ak moom politique Ablaye Wade def vingt six ans opposition doog a jot ci pouvoir Malick Ndour mu ngi am léegi ñaata at juróom fukki at mu continuer mu ñëw jot ci nguur continuer toujours sur la même lancée donc Malick Ndour bokkatul ñëw continuer politique de jeunesse di wax femme jeune day ñëw ci kër fekk góor gi toog maire bi toog mu yëkkati xaalis jox meer ne ko yaa dàq liggéey yaa mën a liggéey demal nga liggéey maire dem jënd frigo ñëw indi ci kër gi teg su xëyee dugg dëkk bi de day lijjanti ji kan moo des ci kër gi góor gi mu sol glace teg ci su solee glace ku ñëw di jënd glace salaamaaleykum glace am na mu ne ko waaw kan mooy jaay glace paa bi di jaay glace paa yu bari nekk ay jaaykatu glace jamono boobu wëlbatiku soo naqaree sa soo soo su eh, fekkente ne da xaw a tàng tuuti mel ni man nga jëm ko kaas mu ne dafa soxor lii ñu ma jox la teg bët ngeen xuloo sëy ba tas alors depuis plus de vingt ans ngeen naan politique de jeunesse bàyyi adulte Sénégal dem doxe di doxee nii muy doxee ba léegi c'est devenu plus pire parce que jeunesse bi ngeen di yaakaar xool leen actuellement ci lan la ñuy dem ak naka la ñuy demee je pense que il est temps pour ngeen xalaataat bu baax parce que ci mécanisme société bi amul benn ressort bu inutile kon waxambaane da ngeen ci xalaat def ci sinon dinañ yuuxu suñu yuuxoo kenn déggul dinañ jóg taxaw ñëpp gis ñu loolu nag laa bëggoon Sénégal ñu wax ci surtout yéen ñi nga xamee ne da ngeen nekk dans le secteur informel ngeen xalaataat bu baax parce que yéen du ngeen ay instrument te du ngeen ay frein pour la société war ngeen a mën a tabax Sénégal comme tout le monde comme toujours noonu ngeen ko doon defee ngeen continuer di ko defee noonu kon maa ngi def appel au président de la République Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre que mu xalaataat bu baax système politique bi nga xamante ne nii man sama xol day tàng kan su ma déggee om politique di di wax ci développement sans pour mu boole tranche d'âge boobu c'est vraiment dommage may woo nag ñëpp ñu wax ci jëf ci toog ci débat ci mu mën a am solution asalaamaaleykum merci beaucoup